mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew mi FM ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi ñu ngi leen di dalal jàmm ci seen émission démb ak tey am mbégte lool àndaat ci ak yéen am itam weneen mbégte dalal Sayer Diop bokk ci sëti Lat Dior Ngoné Latyr Diop héros national xam ngeen ni euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett weeru octobre bi ñu génn ñu ngi doon fàttaliku génnuk àddunaam ngi am téeméer ak fanweeri at ak juróom-ñaar euh, ca dëkk ba mu tëdd tey nag. Sayer euh, mi di chargé communication AGEN association générale pour la sauvegarde des valeurs de Lat Dior Ngoné Latyr Diop héros national du Sénégal daan waxtaan ak moom ci Lat Dior ci jaar-jaaram li mu defal Sénégal li mu fi bàyyi waaye itam li ñu war a gën a jàpp ci moom laata ñuy jeexal ci xew-xew booba amoon Sayer ñu ngi lay dalal jàmm ci démb ak tey di am mbégte itam euh, nga doon sunu gan bisimilah. waaw salaamaaleykum Adja ñu ngi lay ziar bu wér réew mi yëpp di ko tàmbale ci président de la république euh, ci kilifa diine kilifa aada yi ak képp koo xam ne rek sénégalais nga macha allah nga di ñu déglu tey ci réew mi FM. 97 point 5. Mhm. bala ñuy dem dexale ak cilmaxa euh, del si ci xew-xew ba ni ma ko waxee démb ak tey la wax kon dañuy tàmbalee démb euh, démb mooy ñëw ci Lat Joor Ngoone Laatiit Jóob mooy kan. buñ la ko laajoon tey ndaw yi fi ne te xamuñu ko buñ la ne woon kuy Lat Joor sa maam loo leen di wax. waaw très bien Lat maanaam mooy dameel doonoon teeñ aussi doonoon kilifa yilifoon Kajoor ñu fal ko fa mu jaamaarloog tubaab bi ñaar fukki at ak juróom Lat Joor Soxna Mbay mooy baayam saaxeer soxna bi mu di saaxeer saaxeer farna noonu nga koy toppee ba dem ci abu dardaar ci kër baayam ndeyam ngóone na kiir ab sa ngunun moom it koy toppee ba mu dem ci néegu géej kon bu nu mënee mandargal Lat Joor dañ naan Lat Joor dafa amoon dafa nekkoon Sénégal maanaam alliance la woon entre Diop ak Fall loolu nag amoon mandarga bu mu def Kajoor ba tey yàlla dogal sax ñu nekk 33 damel moom rek mu sant Diop kon loolu aussi lu mata a fësal la danañ ñëw ci biir waxtaan wi. Mhm. en tout cas Lat Dior daal moo doon ki nga xam ni moom la président de la république Senghor ginnaaw bi ñuy saytoo téere yi saytu xeex yi saytu jëf yi ñu ni kat kii mën na kat représenter di symboliser le héros national du Sénégal. Mhm. aéronational du Sénégal way woowa li ko jox mooy dafa am lu mu def dafa am lu mu xeexal Sénégal ndax mën nga ñoo delsil euh, ci jaar-jaaru latjoor ba keroog muy doon aéronational waaw très bien xam nga Lat Joor dafa dekkoon ci province bu naan Barguet bu naan Guet Guet nag buur bi Barguet la daan tudd waaye Barguet Guet boobu dafa nekkoon ci biir Kajoor kon barget googu ñoom it képp ku sant Jóob rek daawoo ko yor mais geet boobu mu njëkk am indépendance même Kajoor ndax bu njëkk ñu di ko fàttali ñëpp dañu tënkoon ci Jolof royaume di Jolof hmm. buur ba Jolof moo coiffé woon ñëpp ba ñu ko xamee Amari Ngoone Sobel libéré Kajoor bi nga xamee ne nag Kajoor fiitu na ba moom boppam loolu nag di law mu am constitution boo xam ni ku santul faal ci sa ndey ak sa baay doo mën a nekk damel bu mu egsi nag ci birima Fatma birima ma Latir dama Ngone Latir moomu moog Lat Joor ñoo bokk benn ndey ñu Ngone Latir waaye bokkuñu baay birima bi mu génnee àdduna mu amoon coow amoon xëccoo bi mu ko defee nag ah ci la yàlla dogal nag Lat Joor ñëw ci nguur gi xëy na avant avant Lat Joor di jot ci nguur gi bàyyi birima ñu naan ko ma koddu jotoon ci nguur gi ndax dañ ko voté xam nga li ma ta fàttali faatu mooy. Mhm. constitution dañoo amoon ay charte hmm. lu mel ni charte di mandé nga xam ni loolu mille deux cent et quelque la kon démocratie yàgg na fi hmm. daawul jët rek moo na fi rek mënoon naa nekk nag monarchie élective maanaam doomi buur yi ñoo daa falu hmm. waaye nag du ko mu neex rek nga falu dañ ko daa wote ci biir wote boobu nag ci la yàlla dogal nag la jóor ñëw ci nguur gi sant Diop mu amoon ay déq-déq waaye gis nañ ni ginnaaw bi moom kot moom dong moo mënoon a jóge na waalo faagaagal na El Hadj Omar dugg na Kajoor pour def raay bi pour def téléphone bi la jëkkee ligne téléphonique bi Dakar Gorée ci biir ligne téléphone boobu nag ci la Lat Joor jaamaar la ñoom nag daal di nag lank nag ni ko nag kan du tabax mooy slogan boobu mu waxoon boobu mu ngi am ñaar fukki at ak juróom benn ak ñaar fukki at ak ñett wala ñaar fukki at ak benn suma juumul hmm. moom Lat Joor teq-teq yi nga tudd sànq lu mu doonoon waa teq-teq yi ci palam ci pal gi bon non seulement amoon na xëccoo ndax xam nga Kajoor aussi dafa amoon ay néeg yu daa falu ci seen wàllu kër ndey ak seen wàllu kër baay la Joor géej la woon amoon na Dorabe muy Majoojo euh, amoon na Gelwaar muy Makoddu par exemple amoon na Soño Wagadu waaye loolu yëpp day amaat ay alliance yoo xam ni doomi bàjjan doomi ndey lañ mais dañuy dem nag tamit ba jaamaarloo comme nii ni politique tey nekk ay adversaire politique di def campagne def ay élection waaye nag ñun à aussi dafa amoon lu ñu naan les grands électeurs jëriñ Mbul jëriñ Ngalo ak euh, Jara Bunt Kër ñooñ ñoo daa constitué wu pour fal Damel kon euh, teq-teq yooyu li ko gën a indi nag mooy bi nga xamee ni kii ci ñoo yore pouvoir bi ndax kii ci aussi bi ñu téye pouvoir bi may sa tend joor mi nga xam ni mooy maami Birima juru ko dafa am ay taaw mi demoon ci xare ci xare bi nag ndeysaan taaw ya dee fa les fa bi ñu dellusee nag mu ne ah kon kat moom dafa bëgg a fal Birima mii loolu ñaara ñaare kajoor bu ko bu ko bu ko grand électeurs yi nangoo du am xëccoo du am élection ndax monarchie la monarchie bi c'est élective mais par consensus maanaam mën nañoo dégg ci kàddu ba fal buur bi bi mu ko defee nag Samba Lawbe Fall di jarbaatu Lat Joor ndax Samba Lawbe Xureja Mbooj moo ko jur Xureja Mbooj ak Lat Joor na bokk bàyyi Samba Yaaya Fall moom Demba Souka ko jur Demba Souka ak Ngoné Latyr ñoo bokk ndey ak baay xam nga kon ñooñu constitution bi per mayam euh, ne leen pour ñu falu waaye amuñu woon at yi Lat Joor nag ci wàllu ndeyam la constitution bi ni ko woon dana falu hmm. waaye ci wàllu kër baayam mu waral nag comme par guet la waaye guet googu tamit dañoo am ndombay tànk guet googu tam ay gor yu setu ci lañ ñoo njëkk sax am moom seen bopp Kajoor ci la nag yàlla dogal nag ñu ne ah kon kat moom mii gis nañ ay mandarga ak ay charisme ndax aussi Lat Joor bi muy doon tu tànk mag ñi gisoon nañ ni kii dana doon kilifa xëy na dana jot ci nguur waaye du ci en tout cas daal gisoon nañ ni qualité yi nekk ci moom ak valeur intrinsèque yi ak lim daa bañ daawul bokk sax ak gone yi nu muy xalaate loolu nag bi mu ñëwee nag ñu daal ah comme demee na noonu armée bi ñoom dem waar Sall ñi nga xam ni ñoo yoroon ngànnaay ak xeex bi Ibrahima Thior Ibrahima Fatim Sarr ñooñu bi ñu ñëwee nag Ngoné Latyr moo taxaw i bokk ak euh, Demba Suka Ndeye non moo bokk ak parce que Demba Ngor ci génn àdduna mm. avant la jot di falu Demba Suka moo taxaw ànd ak ku naan Silmaxa Jeng ànd ak euh, Faidherbe ni ko kat man damaa bëgg a falu mm. ci la mag ñi jóg ni ko ah loolu kat mënta nekk ci la Demba Suka xam ne nag comme Samba Yaaya mi doomam mënut a faloogul Samba Laobé mi euh, war a falu mënut falu ñu ni kon la jot fi sës mm. waaye nag comme moom am na qualité yi nan ko essayé te booba jàmmaarloog tubaab bi la Lat Joor du ko ci biloon nag wane ci njàmbaar ku am solo mhm. muy ci xeex bi ñu jëkk xeex kokki mhm. foofu tam ñuy fàttali ni ren dañ ko tuddee woon maam moor ma ma ma maamataan ba jóg kokki mu nekk ay maanaam ñaan wàcc kaamil yu am solo mhm. yoo xam ni lim ba limu kaamil bi mat na daanaka fanweer ak nangam kon su ma see foofu rek damay gis dañuy gis ni lajoor dafa amoon destin maanaam loolu dafa bokkoon ci dundam mu war a jël ndamel gi jël teg ci njàmbaar ko xam nag boo dajalee waxuma la waaye boo dajalee Afrique de l'Ouest tubaab yi lim fi résisté amul kenn ku fi hmm. kon xëy na ba demee ba ci biir nag gis nañ ni moom am na dox lu ci soppi xam naa loolu dinañ ci ñëw hmm. ginnaaw bi nga xamee ni benn rib ba dellu siwaat kajoor waaw mu doon damel euh, bu bu kajoor euh, war a jàkkaarlook tubaab bi ne ko ligne téléphonique kenn du ko fi lalee diggante Dakar ak Gorée euh, fan la tegoon bañ googu mu bañ ñu def liñ téléphonique fan la ko tegoon. ah fi mu ko tegoon ci ni ko waxee kenn ku ne xam nga ni réew day am souveraineté ndax booba tamit tubaab bi ñëw na faagaaga na El Hadj Omar daanaka ren euh, boo xoolee waalo njëmbët xeex nañu ba sax mu dem ñoom rek taal ko kon feder ba booba ñoom Lat Joor gis na ni ñi li ñu bëgg mooy buñ fi defee ligne téléphonique bii kat. mooy di ci jokkoo ndax tamit jumtukaay boobu day doon loo xam ni ah ala kuli àll ñoom gis nañ ni ndax bu nu fàttali tubaab yooyu doon ñoom ñoom Faidherbe ñoom Pinet-Laprade ñu ci bëri ay polytechnicien lañ ay hmm. ingénieur lañ dañuy jàng dañuy xam suuf xam cadastre xam mbay bi hmm. te booba tamit France mi ngi fi def commerce ndax bu nu fàttali aussi colonisation esclavage ko jiitu hmm. esclavage bi ñu ko abolir nag loolu yëpp da daan dem commerce commerce da daan doon njaay njaam da daan doon mbay gerte waaw ba nga xam ni léegi kon France moo doon ñëw nag moom défendre ay intérêt ndax tamit bu nu fàtte ni booba ndara ngi fi ndax la la la ko fa tubaab bi defee xam nga booba Kajoor moom comme ku ci seen territoire. Mhm. dañ ciy maandu waaye xamul nañu France kii doole ji mu yor day dal ci seen kaw moo tax la jor ni leen mbir moom mu njëkk a lànk sax raay bi euh, téléphone bi. foofu tamit danaa fàttali rek nii mbir ma bi moo ko empoisonné Faidherbe bi tamit ñun ñu ci def ay jéego. pour wane ak ak mbonam ak taxawaayam ak li mu liggéey ci colonisation ba tax tey ci ah, lu ci bëri tardement ci Afrique ak suñu réew yi colonisation moo ko waral donc li taxoon mu koy bañ ñoom dañoo amoon vision tam ñoom la théorie dañ daa am ay information ndax dañ daa am ay ambassadeur fu ne yi euh, ci bu ta booba Sénégal bi am ba nga xam ni xam nañ ni tubaab bii bu fi defee kat téléphone bi te booba projet raay bi aussi mu ngi ci suuf waaye fësaluñ ko ndax projet téléphone bi la njëkk a taxawal pour bëgg mu signé ko mu lànk ñu leen du ko signé kon yaakaar naa ni booy defaan say intérêt nga nekk ñëw ne la dañ lay defar téléphone te mosoo ko gis mosoo ko xam te du jëfandikoo mu leen ah loolu nag bu dee traversé sama territoire fii muy Kajoor hmm. dañ ci wax ak góor yu wóor moom laaw ko bañ sax hmm. waaye danañ leen nan nan ngeen koy defar na leer daal bu leer waaw na leer très bien ndax li ci jublu mooy kat da ngeen yori armée soxla ngeen suuf te gisoon nañ ñi tubaab bi dañuy ñëw pour noot ñu. Hmm. loolu lu parce que booba siiw na ci Afrique gis nañ xeex bi dàq nañ El Hadj Omar euh, fale de Bandiagara mu disparaître waalo euh, anéantir nañ ko ba ñu capituler ba nga xam ne waalo amatul benn euh, yëngu-yëngu kon bu ñu ñëwee biir Kajoor nag dañuy xam ne rek comme lañu def fee rek lañu bëgg def fii. Hmm. coowal téléphone bi nu mujjee sotti naam de. waaw téléphone bi coowal ma ko doo ko bañ ni du ko def. Hmm. Lat Joor it ko. mais bi mu ko lànkee nag dañoo xeex euh, ginnaaw 1861 mooy jooju dafa ànd ak euh, gouverneur ñu xeex Lat Joor gañe ko ñu dem Mbul ñu fal Lat Joor 1863 hmm. mu am xeex bu mag boo xam ni Lat Joor da koo xeex ak tubaab yi hmm. xeex boobu la fa tubaab yi deele ci ay nit amul benn xeex buñ ko deele ci Afrique de l'Ouest mooy la bataille de Ngolgol en 1869 hmm. xeex boobu biñ ci paree ba ñu def rapport feneen bi dafa dafa rapport ni ministre des colonies am na fi un jeune damel maanaam am na fi daal euh, ni nga ko mën a waxee nguur soo xam ni bu ñu ko faagaagal fii lu ñu bëgg a def duñ ko def ci lañ def rapport bi France booba arme conventionnelle moo am mooy kanu yi. Mhm. non conventionnelle du moins parce que booba arme maanaam ngànnaay yooyu ñoom la jor ay sitak xëy na ay mëq doom la ñu yoroon. Mhm. Mhm. ñu somb leen nag looro muy diggante Kajoor ak euh, France mu doon xeex bu méttee méttee méttee foofu. mag ñi ne nañ dafa dee ci ajoor la joor bu amuloon fit ak jom. Hmm. dootul dellusiwaat 1869 dinañ ci ñëw ba naan day jëlaat nguur gi wala day xeexaat tubaab bi. Hmm. foofu nag bi mu gàddaayee nag feneen bi dafa séddale kajoor juróom benn province wala juróom-ñaar jël ay nitam yoo xam ni xëy na bokkuñu woon ak la ki euh, kii ñu ko waxati euh, parti. Hmm. mu fal leen fa ni leen nag kajoor amatul damel amatul kon ginnaaw bi nag. moom moo teg ay nitam daal fal. très bien euh, créé yeneen poste ko nangul ko. waaw ñu dem signé ko nangul ko Madiodio jiitu ci ñu fal Madiodio Damel mu 1864 Madiodio siñel leen ñu def téléphone bi. Hmm. waaw Lat Joor nag gàddaay dem dem dem rip. dem rip Kajoor kon léegi. Euh, Faidherbe ba am na France li mu bëggoon am na ko amagul na téléphone bi léegi nag Lat Joor moom gàddaay na dem na rip ca Maba xëy na loolu buñ ci amee ay danañ ci ñëw. ca Maba Jaxu Ba. waaw lu tax mu na ko. waaw li tax mu tànn ko foofu tamit bu ñu xoolaatee ci archive yi ndax xam nga histoire aussi léeg-léeg di nga gis dara ñëwaat ci ginnaaw. Mhm. Lat Joor ginnaaw bi nga xamee ne xeex nañu loolu toogaan na ab diir Kajoor booba Mabba mi ngi woote jiyaat ndax Mabba tamit El Hadj Omar moo doon sëriñam moo ko jox secret. Mhm. jàng na Longoor ñoom it am na lu ñu ko jox. bi nga xamee ne mi ngi woote xare euh, mag ñi dem bi ko fekki Lat Joor dañu moom bu dee gàddaay siin ndax siin moo doon Lat Joor euh, objectif bi moo doon. dem Siin dem ci Maba ñu defar alliance alliance religieuse boobu nga xam ni alliance religieuse boobu nga xam ne Maba defoon na ko ci jaat hmm. Lat Joor dafa defoon alliance politique bi nga xamee ni xeex nañu toog na ab diir ndax ñu bëri dañuy foog ni non non non xeexul rek ca bis ba mu dem RIP am na ay émissaires yu mu yónni ba waxtaan ak mag Maba ni ko nag mën nañoo ñëw jàpp ci xeex bi ci la ko Maba tegal ay conditions ginnaaw bi tamit dafa jaar ci dafa dafa jokkoo ak buur Siin ku mën duñ jaar ci Boursine mais Boursine booba comme moom dafa am prédoctorat dafa am accord de accord de cessez-le-feu nu ma ko mën a en tout cas daal accord de ak tubaab yi. Mm-hmm. mu ne ko ah, man du ma la mën a fat ci la continuer nag dem ci Mabba Mabba tam boobu signé na ak tubaab yi. Mm-hmm. mais bi nga xam ne Lat Joor ñëw na te Mabba moom l'islam lay wootee. Mm-hmm. mu ni la condition yi Lat Joor mu la Lat Joor mën naa laa jël ak condition que nga te ceddo yi nga àndal dañuy tuub fii diine l'islam lañ fi def. yow it da ngay nangoo jël wird ndax foofu tam damay indi leer rek. Hmm. Lat Joor il est né musulman. jàng na longoor alxuraan. Hmm. xam ko bu baax jàng na ko kokki aussi ndax kokki bàjjanam ju naan Aminata Diop dafaa nekkoon bakkoog bàyyam benn bàyyi ñoo ñu def ci premier xeexam bi ñu naan cuxuur ñoo ko jàppale woon ci loolu. Hmm. kon Lat Joor Màmba da koo jox wird mu def ko nag wasilaam na waaye du moom waaye du moo ko tuubal ah. waaw non non pas tuub xam nga tuub man tey ji man na maa nekk jullit waaye ma moo xale par mën ngaa nekk ndaw nekk ci li la neex. Mhm. boo ba nga am fanweeri at fan juróom juróom euh, euh, juróom fukki at. li ñu naan rek musulman non pratiquant. très bien la joo daal dañoo tibli tëf ci nopp nodd fii nodd fee. Mhm. ci lit la ba màggee nag. xëy na nekkoon na ci ëttu maam may si ten jor may si ten jor moom sax ab jullit la woon. Mhm. jullit bu wér ndax tamit foofu père Boila kooku maa ngi ci archive yi bi mu ñëwee di ko waar da ko ni sëñ bi waaraati bii dama ca séeréer sax noon ya nga xam ne yàlla gëmul yonati. ñun fii dañuy julli dañuy woor loolu aussi mat leeral la xëy na nag ci pratique bi ak tamit dem ba nguur gi ceddo gi jàppale na xërëm yi galaaj yi ñuy takk. Mhm. dootul ànd ak diine. Mhm. waaye diine yàgg na kajoor. diine lislaam yàgg na yàgg na kajoor kon mhm. Lat Joor. Maba tuumalu ko da koo jox wird. d'accord wird nag kenn ku ne mënoon nga koy joxe. ci bu fekkente ne yow am nga jëm dogal waaw. da ko jox wird delloowaat ko ci pratique bi léegi. Euh, euh, collaboration am ak Maba Jaxu Ba naka la demee. waaw bi mu ñëwee di collaborer ak Maba nag dafa ñëw Maba ni ko léegi man damay caat bi mu ko kiiyee tubaab bi bind Lat Joor Maba di ko nag Lat Joor dégg naa mi ngi ci yow mais daloo bëgg nga génne ko ndax yow dañoo signé woon la Maba ni leen du ma ko génne Maba tamit dafa jànge Longhor hmm. bis muy sàmm non bis ab sàmm dugg ci toolu sëriñam hmm. muy xeex ñoom ñaar bon ginnaaw bi xam naa xeex bi métti sàmm ba dee mabba ni leen man yàlla rek laa ragal lu ma daw. maam mhm. gi sax daan ko wax la booba moom it ay ñaar fukki at ak nangam laab. Mhm. mabba taxaw ñu atte ko. bi ñu ko attee gisee ko maanaam li ñu ko doon laaj ngóoleel tër nday ma nday la joor da caa def lu am solo ndax mabba aussi booba wane na ay qualité wane na njàmbaar. Mhm. ngóoleel joxe ci aw fas. loola mi ngi xew gannaaw bi la joor ñëwee ci mabba. Euh, loola mi ngi xew. wala lataa loola d'accord d'accord kon xanaa dañoo amoon relation bien avant Lat Dior di ñëw ci moom. très ndax Maba tamit bu ñu fàtte ni waa Longmor ñoo ko joxoon aw xeer xeer woowu bi ñu ko koy jox maanaam moom bi mu jàngee la góor bi mu jàng ba matal ba dellu bi mu songee rijaat dafa dellu si Longmor hmm. waa Longmor joxoon ko aw xeer woo xam ne dañu ko woon xeer yi jox ko ay secret pour mu wirdu ko saa yoo koy wirdu boo ko yëkkatee ba mu tolloog yow hmm. xamal ni boo demee xare ji da ngay da ngay dellu si hmm. donc loolu aussi xëy na dinañ ci ñëw ndax bi muy dem somb yëkkati na xeer yi boobu am fu mu ko yem mu ne ah ci des nag fii da koy yeggale xëy na booba jotukut woon pour mu dem songi foofa ba bakka ba ba ba xëy na tam lu yàlla dogal la. Mm-hmm. en tout cas bi nga xam ne Lat Joor ñëw na pour revenir ma dellu si ci loolu. Mm-hmm. Maba da koo jox armée bi jox ko xeex bi jox ko stratégie ndax boobu Lat Joor moo xam tubaab bi. ndax mm-hmm. ñu ngi waaj la bataille maanaam pour ñëw xeex ak Maba. ndax ndax lim far Lat Joor ah ci la bind ko nag 1865 64 65 ci la ko Pinet Laprade bind ni ko nag Maba nag yow na nga waaj. te xam ne da ngay xaru ndax danañ dal sa kaw booba nag maam Ablaye Niass nga fa mooy Baye baan Baye Niass suñ Tuubaa ji Casamance lu jógewul ndax le professeur Mamadou Ndao ma di ko saluer au passage mi may wax ni ma gis na ci archive yi ni Lat Joor moo scorté woon ñooñu jógee Casamance ak Kajoor armée Kajoor parce que ñoom ñu gënoon a agri ci xeex yi. Hmm. booba xeex nañu tubaab bi trois ou quatre fois ñii nag mosu ñoo xeex ak tubaab bi wala xëy na daanañ ko dégg kon bi ñu ñëwee Lat Joor daanaka dafa nekk liin naa Maba Jaxu Mamour Anta Sall nga fa woon mooy bàyyi sëñ Touba. Mhm. maam Thierno Birahim Mbacke mii fa la àdduna sëñ Touba nga fa woon. sile sile sama ñoom maam ndax man ki jur sama ndey ki jur sama baay. Mhm. la sant mooy ñoom ma ñaaw sile ñoom ma taar bint ñooñu ñu ci bëri ci sëriñ soosu ñëpp xaalis ma jaxate kala kon Sénégal moo daje woon Nioro. loolu aussi lu am solo d'ailleurs dinañ ko célébrer le 30 novembre bi. Pathé mhm. Badiane muy vraiment fête go célébration boo xam ni famille Maba ñoo koy def. muy nuyu seen xalifa. Euh, bi nga xam ni moo fi nekk yàlla ko yàlla euh, yàggal ci suñu kanam. amiin Paoskoto mooy département bi. Hmm. mais xur yi fi ñu xeexee foofu Pata Badiane la dëkk bi Pata Badiane la. d'accord en guerre nag fu xeex bi amee rek. man la moom la tuddee mooy bataille de Pata Badiane. très bien. Hmm. léegi xeex booba naka la demee ak lu ca la joor def. xeex boobu bi nga xam ne ñu koy waajal. dañuy yónni ay espion la joor dañ leen yónni espion ma ba jox ko espion ñu yónni espion bi. Hmm. espion bi waaw espion bi dem Saint-Louis ndar xool nu ñuy waajale xeex bi. Hmm. bi muy ñëw dañu ko booy ñëw na indi man luy mandargal ni demoon nga ci tubaab bi muy ñëw dégg naa ak gën a la indaale. wala ni gën ki tubaab boobu bi am na ma yoo xam ni boo xoolee da nga xam ni nasaraan bee ko yor. mooy gën yi ñuy tuxee. très bien gën yi ñuy tuxee mu leen li ma gis ñu di ko dajale ci ay nit sëf ko ay gileem ak ay mbaam bu egsee fii ci réew mi yàlla rek ak su ñàmbaar boon ci mën a génn. ci la ñëw nag Lat Joor di fekk léegi li ñuy def mooy da ngeen di bàyyi mu dirigé xeex bi foofu sax amoon na xëccoo. Hmm. ay ñoom Birame Gueye ñoom Abdoulaye Oudmati Xuma lii laal Maba yi bi ñu xëccoo nag ne leen Maba leen bàyyi leen Lat Joor dirigé xeex bi xeex boobu tey dañ koy jàngale ci école des officiers fii ENOA hmm. euh, boo demee ci musée bi da leen defal ay démonstration Lat Joor ne leen tubaab bi dañu yor ngànnaay yoo xam ne kanu la porte de tir yi maanaam buñ ko dóoree fi ñu koy dóor ak fii ni taxaw dana mat cinq cent mètres wala quatre cent mètres. Hmm. te bu ñëwee rey benn nit daanaka lu mu fa fekk da koy tas boo demee looro fa ñu dóor garab fa ñu dóoroon ko nii ba léegi ni garab du fa sax. Hmm. tellement que dafa am dafa am doole. la te ne ni mooy comme ni ñu ñëw nañ kaw bu ñu tollee rek ñun dañuy daw dugg maanaam kar leen ci foofu aw suula nag ci wet Fatick Badiane ñii nekk ci wàllu càmmoñ ñii nekk ci wàllu ndijoor ñu jël ay fas solo leen ay mbubb def solo leen ay jël ay nit takk leen ci ngeer gi maanaam loolu stratégie la hmm. ba ñu foog ñu fooy ay nit dafa nekk ñu jël ay marionnette maanaam jël ay bant solo leen ay mbubb teg leen ci fas dàq leen ñu daw hmm. boo defee ñoom tubaab dañuy foog ne ah ñekkat ñoom la joor la fi ñu jaar nag di ñëw ñu xool aussi fan la parce que booba booy stratégie bi da nga naan danañ tekk seen i fas pour naan hmm. kon danañ taxaw ci teen wala ab déeg pour yooyu yëpp ñu ko mais fi nga xam ne fa lañ gënoon a jaar ñu gën leen a ak kanu yi mooy pàtte gàllankaan kanu yooyu boo dee Loor da nga koy fekk département ba. Hmm. ñu jàpp dina la faral boobu dañ ko cee jam ko parce que man gis naa ci archive benn bateau bu ñu woon ak Kaolack bateau bu am doole. Hmm. mais bateau woon ci biir waaye xëy na ngar naa yeeg bagage bi ci bëri bateau boobu moo ko wàcce hmm. kon xeex boobu dañ ko waajaloon. maanaam bu maanaam bu tubaab woon xeex boobu rek Sénégal tey diine dootu fi taxawati <laughs> nguur dootu fi taxawati ndax Sëñ Tuubaa nga foofu Maam Anta Sall nga fa woon. Mhm. maam Ablaye Niass Sundu Maaji bis boobu ci la maam Thierno Ndaamal Daaru Musi gane àdduna moo tax waa daar mussi di ko mhm. symboliser bu ñuy feet ñoom dañuy ci kaw. aussi lu mat mhm. kon xeex boobu dañ ca wane ak njambaar koo xam ni Sénégal képp daanaka ñoo fa taxawoon kon mu doon xeex boo xam ni c' est de la victoire de Maba Diakhou. c' est de la victoire de Lat Dior et du Sénégal loolu aussi li muy mandargaal rek mooy Sénégal benn bopp la kenn ah. mënu ko xar ñaar ndax foofu tamit lépp daje woon na ndax fu Touba ah. daje Kaolack daje fa ñëpp daja fa loolu mooy wane ne Sénégal rek moo leen ñëw Casamance parce que la yow sumt baa ji sumt bi mu tudd euh, euh, moomu ah am nañu ni Casamance la dëkk hmm. sëriñum la woon hmm. kon loolu yëpp dafay wane rek nii bu ñu ko xoolaatee Sénégal dañu war a am li ñu naan le roman national hmm. xëy na foofu laay ñëw faati pour wax ni il faut ñu am roman national roman national mooy faaw ñu jàngal xale yi tàggat leen ñu leen surtout jeunes parce que ñun suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu slogan maanaam ren dañoo dije woon jeunesse bi célébration bi nga xam ni màggal bi nga xam ne ko doon màggal Lat Joor ndax Lat Joor bi mu am ñaar fukki at ak benn la nekk damel ñeent fukki at ñeent ci la euh, génn àdduna kon su ma ñëwaatee ci Pathé Badiane boobu ak euh, nekkinu ñoora woowu rek tey mandargaal bi suñu roman national dañoo war a fexe ba Sénégalais xale ñu tàggal leen ci curriculum yi jàngal leen seen histoire ak seen mboor tey boo nee mboor ñu bari xamuñu mboor lu muy tekki. Mhm. mboor mooy culture. man mhm. matib lu muy tekki duñ ko xam non mboor mooy mboor mooy euh, mboor mooy histoire. Mhm. matib mooy culture loolu faw ñu jàngal ko xale yi mooy rek kàllaama wala bi nga xam tey ak langue nationale bi war nañ ko fësal ci curriculum yi jàngal leen parce que culture mooy suñu soubassement tey jii mi ngi mel ni ngay tabax tabax boo dem fondement bu baax rek du dem. su ma dellu si ci. mandarga xeex boobu xale yi dañ leen war a jàngal ñu leen kat Sidiya ndaxte yàlla diggante ba Lat Joor amoon ay teq-teq waaye bu ñu waxee Sidiya dañ ci war a fier bu ñu waxee Lat dañ ci war a fier mhm. bu ñu waxee Demba War dañ a fier ndax ay contexte na dañuy ànd fii duñu ànd fee mhm. waaye bu ñu dajale lépp rek dañ koy fàttaliku bu ñu leen lépp rek dañu nekk benn nation boo xam ne kenn ku ci ne war nañ lay màggal ndax tamit tubaab bi loolu la réussir mhm. roman national boobu mën nañ ko tuddee réussite nationale am ay yoo xam ni danañ ko ci écorné dëgg la. di ko ah doon nañ fi bindaat histoire Sénégal de. waaw réécriture de l'histoire du Sénégal boobu nag professeur Iba Der yàlla ko yàlla yërëm te yaxal amiin dafa am ay ak ay erreur yu bëri su ci am. Hmm. ba tax loola dañuy kat dañ koy bindaat professeur Mamadou Fall moo ci nekk actuellement nii ñu leen di yàlla bu dimbali leen waaye réécriture boobu tamit lii indi tëq-tëq yi dëgg dëgg dëgg mooy boo xamee ne yow da bind ci Lat Joor wala da ngay bind ci famille Fatou Thiam mais da ngay dem ci Fatou laaj ko. waaw Fatou dana la wax loo xam ne ci ndeyma bàyyam yow doo ko xam. kon yéen ñëwuñu ci yéen am très bien non non ñëwuñu ci ñun. Hmm. ñëwuñu ci ñun da ngay rek gis kenn ni ah histoire générale Sénégal kat wax nañ ci Lat Joor d' loolu moo waral aussi waa Touba ñoom def nañ livre blanc. Hmm. ba maanaam euh, wetti ak bind li nga xam ne moom la histoire générale waxoon ci suñ Touba lu ci bëri nag waroo. waaw te waroo googu li ko waral rek mooy mooy li ma la wax. Hmm. dafa inclusive maanaam lu muy def war a endogène il faut mu xam ni académie ak université ak tubaab yi fi ñu tegoon loolu kay na xale yi nga xam ne tey dañoo nekk ci nouvelle génération bi dépassé nañu loolu lu ci bëri aussi dañ leen ko war a xamal ci seen aada ak seen cosaan mm-hmm. ndax loolu ñoom ñu ngi koy wut waaye amuñu ko donc interlocuteur boobu nag dafa war a nekk ni ñun lu mel ni Latjoor lu mel ni euh, Maba Jaxu suñu histoire suñu mbati ñu delloo ci leen ci wax leen ni leen Latjoor Euh, Maba Jaxu benn la ñu woon kenn ku ci ne dañ laa war a màggal mu indi fierté ci ñoom ndax loolu aussi mooy def réew am taxawaay hmm. réew respecté boppam waaye bu fekk dañuy féewloo kenn naan sama am fii donc loolu dafa am jàngat yu bëri yoo xam ne tey ministre de l' éducation nationale ak état bi ak les hommes de culture université département d'histoire ñoom professeur Ba ñoom Mamadou Fadji ñu defaat ci njàngat les assises nationales de la culture pourquoi pas hmm. maanaam loolu ñu xoolaat ko woote waat ci saytuwaat ko xamaan ni boo koy tëgg l'histoire c'est le passé kon présent bi moo ci am solo ak futur bi loolu nag comme ni ngi fi teew tey yaa ngi fi maa ngi fi yaakaar naa bu ñu ci defee ay jéego def ci ay jàngat danañ xam ni war na am société bu bees ndax tubaab bi mën jàngal suñu histoire moo jàngal nasaraan jox ñu làkkam wax ñu li ko neex loolu nag war a tëkk waaw def lu ne loolu la Lat Joor doon bañ kan tabax Lat Joor li ñu gën a remarqué ci moom mooy moom la daanoon tubaab ni ko doo dara Lat Joor jàpp naa sax ay tubaab xarfal leen yóbbu ne leen bu ngeen demee ne leen gouverneur nii la góor di mel. Hmm. maanaam loolu yëpp message la yu mu daan def mosu leen a jox cër ci benn côté. Hmm. moo tax bi nga xamee nag euh, euh, Suzanne Pathé Badiane bi pare na tubaab bi def ko bind. parce que boobu tam moom mi ngi waajal il est en Gambie il est près la Gambie bu jënd ay ngan lay wan tubaab bi ni ko bis bu ma amee doole maa koy danaa dellu si tubaab bi ni ko léegi xeer bi mën naa takk waaye damel moom nangootuñu nga doon ko bu fekkee nangu nga doon barkeet daal ñu def la barkeet nga dellu si. Hmm. mu leen waaw. donc Lat Joor 1869 bi mu dellusee parce que toog na deux ans après la bataille de Maba de de de de de Pathé Badiane boobu tamit danaa ñëw ci xeex bi nga xam ni xeex nañ ko somb te Maba Maba Jaxu des fa dana yàlla yokk ay leeram. amiin 69 nag toogaan na fa deux ans ñaari at la moom Lat Joor. 69 hmm. bi mu dellusee la nangu dem toog Guet Guet mooy province Malaw bi xam ay maamam ñoo ko moom mu nekkoon indépendant. ama la Kajoor mu nekk fa barget yor ndam ak tànkam ci suuf nag lu jógaat mobiliser waat Kajoor dem Njàmbur dem Bawol ñoom ñëpp ñu toppaat ci ginnaawam mu attaqué waat tubaab bi xeex bu naan bataille de Mekhe bataille boobu tamit la faral di rey ci tubaab daanaka colonne bi bu doon cent lañu juróom-benn ñoo ci rëcc te foofu tamit ma ci saluer sama sama mag sama xarit mbéy gi si di yi taxaw ci mboor xeex boobu nee na moom mooy mooy xeexam ndax booba ni ko tubaab bi le mutilé muy capitaine Canard nee na daanaka moom foogoon na ni dee na am na benn kii bu ñuy wax koroma ko xama cëma ko kooku moo ko gindi waaye euh, maanaam moom defoon na testament ba ni soldat yi ku ci rëcc rek boo demee na nga gouverneur kër ñii la xeex bi demee hmm. xeex boobu nag bu mu jeexee la jox daf leen attaqué waat beneen maxi tubaab bi attaqué waat ko Louga donc mu xeex ba mille huit cent soixante onze nag ci la ñu ni ah tubaab bi nii ñoom kat comme dafa am guerre bu mu doon guerre ak ñoom ñu leen ko laaj kii périchienne mënatu ñoo dem ñu ne la toog kon dañuy nangu léegi on va capituler dañuy signé accord de paix nga nekk Damel. 71 kon ñu delluwaat ko Kajoor fi ñu séddale woon la jël jëlaat nguur ki mais nag toog kër amul yàlla foofu tamit muy dellu Maba Jaxu dañu ko boo delloo Kajoor loo bëgg mën nga ko xam waaye koy teg ci diine ak islam muy dem boole ko Mamor Anta Sali Mamor Anta Sali ñëw Paataar Paataar kii ci Looro ci commune Looro. Lat ñëw na mais Lat Joor bi ñëwee aussi mënul moo doon capital ba booba mais moom bi ñëwee dafa dem kër Amadou Yàlla wala kay jàngal yow sax xam nga ko Lat Joor inné ak kër Amadou Yàlla mhm. ci ma xam ngol la xëy na moom lañ mandargaal ci histoire mhm. ci ni ñu ko waaye benn la ndax ñaari dëkk yëpp ko moom mhm. kon bi mu toogee kër Amadou Yàlla nag léegi mille huit cent soixante onze ba mille cent quatre neuf ci la soog a soppi kopp capital bi yóbbu ko Sugeer Maama Anta Sali tamit mille huit cent quatre boobu ci la sanc Mbàkke Kajoor lépp aussi ñu fàttali ni Maam Mor Anta Sali mi ngi ànd ak Sëñ Tuubaa ndax boobu Sëñ Tuubaa moo ko yoral daara ji nekk vraiment homme de confiance am lépp yar ko woon ndax ña ca des ña mhm. a la muy diggante euh, religieux bi pouvoir religieux ak temporel bi mhm. kon Lat Joor am conseil de quarante marab amoon na ay chérif naar yu santoon ay dara jóge woon Mauritanie mhm. parce que lu ci bëri aussi daf leen daf leen daf leen jëflante indi njëmbër di trace ça et tamit boo ko remonté moo Lat Joor dañuy am les liens de parenté. d'accord kon Joor euh, fexe woon na ba moom l'islam euh, am bu naan Vincent Monteil kooku tamit bind na ci téere bu am solo ñu naan ko Lat Joor et l'islamisation des wolof hmm. mais li ma jaaxal boo demee archive nationale dama foog ni livre la mais ñoom nee nañ ma du livre c'est un document archivé. bon loolu aussi ñu ngi ci def gëstu ndax moom li ma gis livre la. mais boo demee dañ naan la le livre n'est pas commercialisé ndax lam ca wax ci la coon hmm. dafa ne la sax am na ci dëkk yoo xam bu fa demee bu néeg borom néeg borom dëkk ba lay def càkka hmm. dañuy julli di noot di woor mës sa atte de mille huit cent soixante neuf en mille huit cent quatre vingt six bi muy daan yor nguur gi dul ci islam Mamour Anta Sali Xaalimar Jaxate Kala Cheikh ma Ndiassane ak jàmbaar ci ni Masek Ndoye taw ñooñu ñoo ko coiffé woon ba tax li gën a indi problème ak waa mbul nga xam ne armée bi ñoom dem waar ñoom benn moment dañoo frustré wu ñu ko nag lu tax doo ñëw mbul ndax mbul walla kër ñu nekkoon. Hmm. wala fal mbul vraiment c'était la capitale mythique. Ah. la première capitale. booba dañoo gis ne mi ngi gën a jege ñi nga xam ne ñoo gàddu l'islam booba jamono ñoom Maam Mor Anta Sall ñeneen. très bien hmm. bu ko defee nag ñii tamit bon seen pouvoir xaw a wàññeeku xëy na ñu jéem a ci seen bopp foofu la France ñëw nag dugg seen biir infiltré leen. ba dafa sax ay ay ay ay ay ay ay ay agent secret ak ay voilà ay espion yoo xam ni hmm. daanañ daanaka di jox renseignement tubaab bi ci Lat Joor ak ni parce que boobu tamit ci la raay bi di dellu si foofu tamit may fàtte Alburi Njaay Seyna bu Alburi Seyna booy yaayam hmm. euh, Saakar Fatma Saakar Soxna Mbay mooy bàyyi Lat Joor Alburi ak Lat Joor ay doom yi bàjjen doom bi bàyyi la doom bi bàyyi doomi Njaay doomi bàjjen lañ hmm. am na ñu ni tamit Lat bi di yaayam la ci wet li ma bëgg wax rek mooy Albouri tamit bi ñu xam ne ni faagaagal nañ dañoo assassiné dañoo faagaagal waajuram bu góor boobu ñetti at la am mhm. su ma jëmul bu la juróom nday mu dellu si Kajoor bi mu dellu si Kajoor nag dafa yóbbu Albouri ci ëttub may sa tenn joor mi nga xam ne mooy maamu Lat ñoom ñaar mag kon Albouri tamit xeex bu Lat Joor xeex mhm. te mille huit cent a en mille huit cent soixante quinze rek Albouri ci nekk jàmbaar nag ndax ñoo daanaka ñoo kon ñoo yarandoo très bien ñoo yaroon loo màggandoo Alboury tuddee la Lat ñaari yoon doom. Hmm. bi nga xamante ne 1875 Lat Joor nekk na tey ci la ah, man kat am naa li ma bëggoon parce que booba dañuy def damel bu ne. Hmm. bala ngaa am titre rek da nekk damel tey. Hmm. muy xeexub Sambe xeex na ñetti yoon na waaw ak ak ak ak ak ak ak tey bi nga xamee euh, euh, daaneel nañ tey ba Lat Joor nekk damel tey dafa ne Alboury léegi da ngay dem Jolof nekk buur ba Jolof. bi algori di ñëw tamit fekk na mhm. fa pour bu naan Amadou Seeku mu teg farakam ndax Amadou Seeku moomu annexé na Jolof cinq ans juróomi at bi ko waajalee ba def fa xeex bu métti rek bi Amadou Seeku moomu moo xeex ak ñoom ba ñu faagaagal ko moom tamit algori mën a samp pour yor Jolof nekk buur ba Jolof waaw te loola ci ndimbalal Lat Joor itam la am waaw parce que booba Suzanne booba Lat Joor ak algori ñu ngi ànd di Kajoor mhm. comme comprendre nañ ne te Albouri moom buur ba la te war naa doon ndax bàyyam moom it ci constitution bi amoon na droit ci nguuru Jolof mu ñëw ànd Joor dem xeex pour jël euh, Jolof. Euh, jël li mu moom très bien foofu tam hmm. may fàttali ñi Jolof it am na ñaari yoon damel am na ñaari yoon buur yu sant cege. Hmm. ku ne xam na ni Njaay la ñuy sant ñu naan ko Silmaxa Jeen hmm. xëy na kooku. beneen émission bu gën a yaatu. lu leen fa teg moom kay gumtu ndugg ko borose ko rek. lu leen fa teg xam moom. Mhm. maanaam li leen fay teg mooy da bokk ci sa kër sa ndey day bokk fii maanaam comme comme constitution bi. Mhm. dañ naan sa baay day sant Ndiaye te yaay sant Ndiaye waaye bu sa yaay sant Ndiaye te circonstance ñëw comme ni ma la wax loolu dañ ko gis ba ci suñu grand sëriñ bi. Mhm. grand sëriñ Diop la daa sant. waaw El Hadj Ibrahima Ndiaye grand sëriñ bi ko indi ci góor gi. waaw euh, euh, euh, waaw. waajuram très bien. Mhm. kon noonu rek lay demee ñaare sa ndey da ciy bokk fii daal di am doole lool. Mhm. ndax kajoor aussi dañoo fonk meen bu ko defee li ci def circonstance lay doon doo am ko fa nekk wala mu doon nit koo xam ne am valeur intéressé ak ay qualité yoo xam ne xam nañ mhm. kii mën naa doxal ñu fal ko. yaayoon na ko. kon euh, la fa Alboury newul woon mën nañ jàpp ne bokk na li ci li tax euh, li favoriser ña sant Dieng euh, nekk fa ñaari yoon Bourba. waaw loolu jiitu na jiitu na. jiitu na jiitu na jiitu na loolu Albouri Diagne. Albouri d'accord Seyma Kadiagne moomu. Uh-huh. ñi gën a sax influencé maanaam ñi gën a wax Ngone la te ni ko man mii kat nekkoon naa buur ba Jolof te santuma Njaay. Hmm. ci la bokk moom moo ko woon Ngone euh, Demba Suka. d'accord pour wax ne Lat Joor war naa mën a falu. très eh moom amoon na ci influence. d'accord waaye li nga xam ni daal fédère bu xamoon na ko moom xamoon na ne Lat Joor bu ñu ko falee. Hmm. moom raay bi dafa jaar téléphone bi dafa jaar moo tax dafa Lat Joor fédère bi dafa xeex Lat Joor. ba sax dafa daw après ndax ginnaaw bi nit ne ne ñoom Lat Joor ñoom seen moo doon jàpp Faidherbe mais Faidherbe mm. boo xoolee 1865 dafa ñaan affectation dem Algérie waaw tamit euh, koo xam ne war nañoo xam mooram Faidherbe da daa bind yaayam naan ko lakk naa ñaar dëkk ak juróom-benn di ko damoo bind ci loxoom livre boobu mi ngi fi. Hmm? le Sénégal et l'Afrique occidentale Faidherbe waaw yaakaar naa titre suma jublu noonu la tudd téere boobu nag waaye ci bëri fi nit ñi duñ ko la ko fësal Faidherbe li lakk ci ay dëkk. lim fédère bi daana sax jàpp ay nit. lakkaale waa dëkk bi te place fédère boobu ñu ko tuddee daana fi indi ay sëriñ yoo xam ne alxuraan la ñuy jàngale parce que boobu jiyaat lay bañ. Mm-hmm. pendre leen. Mm-hmm. pendre takk takk di yëkkati ba nga sedd kuy mu tëral teg fële kon fédère ba xëy na lu ci bëri nag sax waa ndar xamuñu ko heureusement nag estati ba dañ na te ñu ngi commencé di xam kan mooy fédère bi ci ñaawte fi mu defoon ci foofu ci colonisation. Mm-hmm. d'ailleurs a sax benn Federer daa tombé boo xam ne lii Federer bi lii la juddoo fa la màggee fa la yaroo ñoom dañu ni Federer bu mérité benn honneur muy ci France ak fu mën a doon ay tubaab lañu bu daa tombé boo duggee Google ko gis boo tàppee daa tombé lañ ca wax ak lañ ca bañ ñëpp ci jëmm jooju nga xam mooy Federer. Hmm. Federer bi dégg naa avant muy gaañ il était dans la guddi maanaam dana tëdd bu guddi muy yuuxu ndax benn jamono dafa tàbbi ci benn kiwet bu amoon place tànk bi daal laaj woon en tout daal bi muy dee ku sonn sonn na lool ah, lool. Mhm. bi muy bi muy dund itam Lat Joor sonaloon na ko nga ni. waaw parce que xam nga Faidherbe moo njëkk a ñëw ci gouverneur pour coloniser. Mm. nekkoon na gouverneur bu doy waar aussi. ku mënoon xeex ndax El Hadj Omar bu ma ci dellu si tuuti rek. annexé na le fort de mois. Faidherbe moo jógee Saint-Louis dépêché benn bateau ñëw dàq leen ñu daw. kon bi mu jógee foofu rek dafa daal di ñëw dugg Kajoor seen problème Kajoor nag mooy Kajoor mënoo dem Ndar te jaaroo fa. Mm. contrat bi fa lay jaar téléphone bi fa lay jaar marchandise bi fa lay jaar même sax li taxoon ñu gën a ñoom choisir Kajoor kooku mooy tubaab bu ndaa dañuy dañuy topp géej gi tefes hmm. ndax boo toppee géej gi tam loolu stratégie kenn du la mën a bett hmm. loolu yëpp moo taxoon te Gànjool loolu yëpp ay suñu xoor ci Kajoor la bokkoon kon ñoom Kajoor jaaxaloon na leen Lat Joor jaaxaloon na ba xam ni Faidherbe bi daal àla kulial moom rapport yi ci def li muy daanee ci livre bi nañ Lat Joor moo leen mos a récité pendant vingt cinq ans ci Afrique de l'Ouest lim fi faagaagal tamit amul benn buur bu ko faagaagal mm. kon léeg-léeg ku ma dégg ñu naan héros national wala di remettre en cause dama naan leen ku ciy wax rek danay ngay dem ci archives yi nga xam ni du dara moo tax ñu la mel acteur international mais day symboliser la résistance en Afrique. surtout ca bataayu Pathé Badiane ba sànq maa ngi la koy bëgg laaj est-ce que xeex boobu bokk na ci li ñu mun a jàpp ne moo def dëgg-dëgg Lat Dior héros national parce que nee nga boobu xeex bu ko tubaab bi gañe woon euh, tey Sénégal du nekk fi mu nekk kenn du fi wax waxi diine ndax kilifa diine yëpp daanaka daje woon nañ fa. waaw xam nga bataay boobu bi ñu ko gañee. Hmm. effectivement moom laa ne seet foofu c'était le Sénégal en miniature. Mm. kon xeex boobu Lat Joor am na ca Maamoor Anta Sall ndax sëriñ si aussi ñoo yoroon téere yi di jàng. Mm, ña nga woon ca kurus ya ah, kon mën nañu ah xeex boobu moom ci lañ ëpp mobilisation. Mm-hmm. mais tamit du xeex boobu rek lañ koy mandargaale. Mm-hmm. boo demee ngol-ngol nee naa la tubaab bi rapport bi ñu def capitaine Bola nee na. ngol-ngol mm-hmm. la fa dee ci ay spahis cent quatre spahis lañ fa rey cent quatre. donc deux deux deux ak deux sous-officiers. xam nga ñaari officiers yi dee. Hmm. en mille cent soixante boobu Lat Joor vingt et un ans la am. Hmm. kon yaakaar naa ne loolu aussi lu am solo la mooy xeexu ngol-ngol boobu. Hmm. kon xeex boobu da ko gagné la bataille de Mékhé tamit Lat Joor dafa war a jàmbar bu ma sëkk kon bu fekkente ne dañuy mandargaal jëluñu yaakaar naa ne xeexu Mékhé la ndax xeexu Mékhé Lat Joor liñ ko rey ci Kajoor dafa bari mu dem dellu si nangoo nekk barket waajalaat attaqué waat tubaab bi kon loolu détermination la patriotisme la la courage la maanaam bëgg sa réew la ndax tamit moom amoon na force boobu boo xoolee Kansiri maam sunu maam Kansiri moom maam Amadou Bokro Dieng gànkal ñu bokk ndey ak baay Amadou Bokro Dieng ak Kansiri la jot ñu bokk baay te ko ci yóbbu ko ci almaami bi mu sëy fa boo xoolee tukulóor yi dañuy am tur yu bëri Kansiri ñu foog ni non Kansiri la jóge woon bu muy la xàccee mu yóbbu ko Jolof jox ko Alburi waaw mu am ci sunu maam Sidi euh, Alburi kon alliance yooyu la jot daana ko def pour wan leen lépp lañ ko war a dajale donc moom il a été consensuel maanaam jéego yi mu teg pour ànd ak ñëpp ñu xeex tubaab bi yaakaar naa ne loolu si day mandargaal ni def nañ ci ay jéego yu am solo ba mën a dikk ci loolu ko wax boo dajalee Pathé Badiane ngol-ngol Mexe Louga alliance yi day daal di mandargaal loolu mooy def héroïsme ba nekk héroïsme national ci consensuel bi nga xam ni tey mën na koo dajalee ñëpp gis seen bopp mm-hmm. loolu ngeen doon fàttaliku euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ñaar fukki fan ak juróom-ñett weeru octobre bi ñu génn fàttaliku surtout génnuk àddunaam ba mu daanoo ca deqaleeg tey am téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñaar cent trente-sept ans euh, xew-xew ba euh, lan lañ ci mën a jàpp ndax itam lu am solo la ngeen def ci communication bu rëy rëy mais aussi ngeen jagleel ko surtout jeunesse bi ban message ngeen bëggoon jàllale ci xew-xew boobu ci ndaw ñi waaw message bi ñu ko jàllale ginnaaw bi nga xam ne nii Baye Sidi Koulimbaba parce que moom mooy xalifa Maam Lat Joor Baye Sidi Koulimbaba Koulimbaba moo ko jur Koulimbaba boobu doomu Lat Joor la waaye kenn rek la ci magoog mooy maam Seer Seer boobu Seer Matiba doomu ko tuddee kon Baye Sidi Koulimbaba il a quatre-vingt-douze ans mu teew fa teew bu am solo euh, ci euh, li nga wax noonu ci message yu maanaam li tax ñu célébré ko tuddee ko jeunesse bi ndax tey Euh, ginnaaw bi ñu sant yàlla nag ak le président de la république foofu tamit dama fay ñëw rek ñu taxaw ci le ministre de la culture muy un jeune aussi Aliou Sow ñu ren lañu soog ànd ak moom teqale il a été le premier aussi ministre de la culture bu teew foofu ci barab ba jàpp ci bu baax a baax a baax na boole ñu ak son et lumière Sorano le directeur du patrimoine d'ailleurs moom nee na loolu lay jàngale bi ñëwee dañu danoo dañoo vraiment daf ñu encouragé kon loolu aussi dafay am solo lu mel noonu ñu sant ko ci gërëm ko ci wax ko ñëpp dégg ko ni vraiment ah ñun day na nañ célébrer mais lii ñu gis ci moom. Hmm. mu accompagner la dalal suñu xel ndax tey lu tax ñu tuddee ko jeunesse bi mooy gis nañ ni jeunes ñu ngi jël gaal gi di dem manque d'emploi am na te dëkkale ñu dañu bëgg mu nekk une destination de résistance loolu ndeysaan ma koy saluer sama cousin sama jarbaat Daouda Ndiaye jaraaf Daouda Ndiaye ñu dëkk fii nii Ndakaaru daf ni ma sayer loolu maa moom ndax surtout Madior Dia Mbène la Madior Dia Mbène ak Dakar xam nañu ko ba pare daf ni ma sayer on doit changer d'approche dañu war léegi Gorée se mémoriel mais Gorée ne fait pas tout notre fierté parce que tubaab dañu fee ñëw fàttali suñu njaayum jàmm. Mhm. on va faire boo xam ni tubaab bu ñu Kajoor yëpp danañ fexe ba Mbul Jaaji Sugeer dëkk bu ne ñu ànd ko ak ñi nga xam ni tey ñooy armée ànd ko ak ministre de la culture def fa ay projet de développement projet développement boobu nag moo tax ñu doon incité jeunes yi ñu leen kat bu ngeen gëmee seen réew gëm leen seen réew comme la toor am leen patriotisme waaye nag day fekk tamit état pouvoir jàpp ci loolu le président Macky Sall nous avait promis un forage dañu bëggoon forage boobu nekk un forage agricole am nañ un forage bu nekk dans la département de Thilmakha mën na arroser tout le département de Thilmakha hmm. tey li ñu manque rek mooy ndox pour lu bay dañoo bëgg nag au-delà de la célébration maanaam lii nga xam ne ñu ngi koy màggal sunu maam dootu rek Lat Joor la jëmm ci wala kat aada cosaan wala surtout Lat Joor la waaye dañoo bëgg mu am ay projet développement yoo xam ne jëmi dootuñu ñëw ci taax yi mën nañ sax jógee ci taax yi di dem foofu muy tourisme bi tey ci imaginer bu la amoon tey ci ay fas yoo xam ne dañu koy indi foofa ci distance su daaru mën naan déqale wala cilmaxa déqale nga luyee ko tubaab bi nga luyee njël seen oto njël fas yi war ci li nga xam ne tamit tey mooy euh, ci suñu aada ak suñu cosaan muy sump di kook ndax après sax mën nga koo jaay tubaab bi daanaka loo xam ne yow li nga koy jaayee fii dana ko donc village artisanal bëgg nañ ko fa boo xam ne buñ ko amee dëkkale kenn ku ne boo xëyoo da ngay dem tijji sa boutique jaay bëgg nañ fa centre culturel boo xam ni diggante Cilmaxa ak daa dëkkale ak Daaru Manaan ci Kajoor mu am un grand centre culturel boo xam ni lu waay seet histoire wala ci mboor dafa ko on avait le euh, le président Macky Sall avait dit que dina ko defar raser ko lu mu mosale en tout cas ñun daal suñu association bi nga xam ni tënkal nañ ko dañ ci woo Sénégal ma ci salué nag le maire de Darou Manane tamit wax na ko maam Thierno maam Thierno nee na Lat Dior ba mu juddoo la sant Diop waaye ba mu màggee la sant Sénégal kon loolu aussi dafay mandargaal rek ñu ci salué aussi le sous-préfet de Darou Moussi mu def ci am solo madame la sous-préfet l'adjointe de la sous-préfet madame Baldé de Kébémer ci saluer aussi le gouverneur Amar nga xam ni gouverneur Amar ci famille presque la bokk moom moo ñu orienté ci lu bëri aujourd'hui il est affecté donc ñuy sant ñëpp Fatou vraiment mhm. di wax ni on appelle encore la jeunesse ñu ne gëm leen seen réew di wax poids public aussi bu ñu jàppale ci investissement yi on a des projets d'envergure mhm. yoo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu ko tegee rek lu ci bari bari bari mën na soppiku ñu ci wóolu d'ailleurs le ministre de la culture nous a dit ça nee hmm. nañu pour xëcc ministre de la culture ministre du tourisme ministre de l'éducation pour ñu lënkaloo seetaat suñu mboor delluwaat dëkkale delluwaat ci barab bi noonu ba xam ni Sénégal danañ xam suñu mboor danañ xam ni kat yi amoon na ay bañkat danañ xam ni si réew mi ñoo ko moom dootul teet yi jéegaan yi ndax bu ne pétrole gaz feeñ na hmm. lu ñu wute di France ndax nit ki lekk ak naan rek lay wut hmm. kon dañuy ñaan pouvoir public yi mu gën a góorgóorlu ci loolu création d'emploi bu ñu hésité benn yoon bu amee ndox am ay tuuti euh, autorisation ci suuf si mën nañ faa développé lu bare bare bare bare bi loo xam ni tey ci faatu sump hmm. mën nga ko jaay tubaab bi hmm. kooku mën nga ko jaay tubaab layu buy loolu yëpp day nekk matière yoo xam ne tey bu ñu demee mën nañ ko sax industrialiser ndax ku ni tourisme ni euh, déplacement hmm. un milliardaire mën na ñëw gis di visiter gis ko ni ah mën ko damaa bëggoon a donc ainsi de suite en tout cas sur le plan religieux aussi daara yi duñ leen fàtte ndax maam Thierno wax na ko ci le maire de ndax lu ne ñun ñu ne mooy suñu sukkandiku di ko mooy suñu cëslaay kon loolu aussi dafay am solo ñu allier lépp ba xam daal en tout cas Lat Joor comme ni ma ko wax bu nekk rek célébration bi mais ci ginnaaw célébration bi dafa am yeneen yu fa am yoo xam ni ala kulli xaal ñu ngi ci te bu ñu jàppalee rek incha allah rabi dinañ ci am ndam. musée ba fu mu toll. bon musée bi euh, bi ñu ko defaree nag defar bi dafa def ndax ni ñu ko defaree. dafa di ko ci ci bi ñu koy defar. Hmm. xam nga booy soog a doo xam. Hmm. xëy na boobu itam am na expérience. était du temps euh, de la culture de Latif Coulibaly. Hmm. bon ak le directeur du bâtiment mais bii nag lii le président Macky Sall ñëwee daf ñu daf koy raser. cest si dire le directeur du musée Mandikou Guèye. waaw daf koy raser actuellement ni ci yooyu lañ nekk à à la Coulibaly bu ko defee bu ñu fa defee musée bu am doole musée bu am dayo tubaab bu ñëwee danañ mën a xam ni fii kat. musée la parce que musée aussi dafa am nu muy tëddee. Mhm. waaye nan defaree musée ba wax dëgg yàlla loolu moom. taxul ñu naan musée. kon ba tey yéen ngi ci yoonu jëmmal bërëb ba xëy na pour ëllëg mu nekk lu ñuy dem di seeti comme ni ñuy demee gore très barab bi daal dafa des état bi tool ceeb taxawaat nag xam ne nag wax dëgg yàlla comme ñi ma la wax rek jëmmi la tool waaye day am leneen loo xam ne mu ngi la xasu ndax la tool loolu la woote woon dajale woon dajale nit mm. Sénégal dajale Kajoor kon war na am mandarga boo xam ne ku fa ñëw ah ala kulli xaal di nga xam ni kat te loolu jafewul de maanaam bu ñu dégloontee rek loolu jafewul maanaam du loo xam ni hmm. dana laaj koom bu bari bu ñu bàyyee ñun ak ministère de la culture ñu waxtaan projet yi nga xam ni bëgg nañu ko jëmal ñu waxtaane ko rek man naa la waataan ni déwén ku fa ñëw da nga xam ni fii soppiku na loolu booy suñu méthode vraiment ñu am musée bu hmm. am dayo un musée national parce que c'est national boo xam ne tamit ku fa ñëw di nga dafa bañ. Hmm. dafa dafa dafa dafa dafa daanu fii les armes à la hmm. loolu aussi encore une fois rek ma ci ñaax jeunesse bi ñu xoolaat ci Lat xoolaat ni daaw tamit kenn réewam lu muy tamit rek ngeen toog am espoir espoir boobu tamit nag ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi ñooñu jiite ñu di ko tàmbali ci président la république mu def fa nag am solo ndax aussi dinañ ci sant président Senghor moo ko def héros national. Hmm. Abdou Diouf en quatre-vingt-six moo célébré. le centenaire Lat Joor mu nekkoon une fête boo xam ne mën naa ne c'est mm-hmm. président Macky Sall Abdoulaye bi ñu ñëwee dafa dépêché woon benn architecte mu dem Inde ba inspiré woon fu benn mausolée ba indi la ko ba defar maquette bi mais boobaag léegi nag maquette boobu ñu mënuñ ko mm-hmm. le président Macky Sall nag depuis quatre-vingt-six il a été le seul président bu fa teew en deux mille dix-huit ñu def fa musée boobu vraiment depuis quatre-vingt-dix-huit ba deux mille dix-huit boobu nag moom moo ñu jàppale ci célébration bi ñuy célébré ça soit peu ak ñu la le de yàlla seet kooku mhm. dana jafe lool ci ñun pour souligner ko rek ni les hommes passent les institutions demeurent ñu ñaan nag kii ñëw ak ku fi mën a nekk nga bàyyi xel loolu xam ni li ñuy def ñun dafa am leneen ci seen séntu au delà di di di la de la célébration de la mort de Lat Dior hmm. kon daal di sant maanaam président yi xam yëpp jaar nañ fi. Hmm. sant tamit vraiment euh, maam Thierno mu mu mat ngay toog suñ si aw balla ndax tey luñ fa mën a def moo mënu ko yombalal. Hmm. di ñu ñaanal uuf nu loolu aussi ñu ko ci remercier. Hmm. jërëjëf Sayer waaye laaj bu mujj bi mooy doon tey ndaw ñi boo leen doon euh, dénk dara ci latjoor lan ngay bëgg ñu gën koo jàpp ca moom royee ko ci moom jël ko muy exemple boo xam ni dañ koy takk te mu jariñ leen. waaw loolu su ma mooy fit jom ak jom. bëgg sa réew. bëgg sa réew fonk sa réew xam ni tamit ah, xëy na mën naa métti waaye nag am na loo xam tamit bu ñu demee bàyyi ko fi kenn du leen ko defal. Mhm. bon ndaw ñi aussi ma leen ñaax ci ñu xam ni réew dangay xam sa mboor ñi gëstu di xam histoire di bàyyi aussi di féewaloo ci diw def na lii diw def na lee diw maami kii la. Mhm. loolu maanaam ndaw ñi da war xam ni mboor ak histoire passé na. li passé nag yow boo ci xuloo daanaka ñàkkum xel la ñaare wala nga ci xeex ndax la amoon am na xëy na nag danañ xool na mu rafetee wax dëgg yàlla ñu wax ko ndax tubaab bi sax dañ koy def Alioune Badara Bèye mi koy saluer ma sayer quand on a été en France bi def sama film bi tubaab bi dañ ma doo wax ngol-ngol parce que c'est une grande défaite doo wax Pathé Badiane ñu ne ma woo Abdou Diouf Abdou leen suñu nangu loolu ñëw leen ñu bisi leen bi ñu ñu bisee ci lañ woo les sociétés ñu financé ko ak sponsors yi à de trois cent et quelques xam nga tubaab bi sax tëfuñu xam na ñu ñuy bindee seen histoire moo tax ma ni il faut am roman national xale yi aussi dafa am lu bëri lu ñu war a xamal loolu nag day laaj ci éducation maanaam ci yar gi école bi faaw ñu changé njàngale mi ndax xale yi tamit ñu nu màggee rek bu nu màggee noonu la ñuy gisee xëy na bu fekkoon tamit loolu am na ca baax ba ci tàggat gi leen tàggat boo nekkee ndaw tuuti teen wolof wolof ko jàngale ci école yi lu tax lu tax duñ ko jàngalee ñuy jàngalee latin ak grec hmm. luy latin grec du nga jàng wolof séeréer les langues nationales c'est codifié depuis Senghor depuis Abdoulaye Wade mi ngi fi kon nañ ko jëmmal fësal ko. voté ko assemblée nationale ñu xam ni faaw bu muy dem faaw bu mu bëggee développé dafa am pour ñu suqali ko mooy ci suñu mbatit mooy ci suñu mboor. Mhm. suñu biir ak suñu aada ak suñu cosaan. Mhm. mooy nag langue yi rek damel amatul li ngeen amatul waaye nag ñu fonk yooyu jumtukaay yooyu muy lakk li ngor jom am looy jom am looy bañ. loolu bu amee ci réew ci ndaw ñi. Mhm. day daal doon ay mandarga yoo xam ne kat. dana mën a développer réew mi. jërëjëf jërëjëf lu ñu soxla la sax fii jamono toll Sayer euh, Ablaye Coumba Daara Diop ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci démb ak tey fàttali ni yow sët nga ci Lat Dior Ngoné Latyr Diop héros national bi ñu doon waxtaanee tey yaa yor itam kàddu euh, ak communication AGEN di association général pour la sauvegarde des valeurs de Lat Dior Ngoné Latyr euh, héros national du Sénégal ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. Fatou du ma nga baal ma rek parandool foofu ñu ngi ciy ñaanal aussi le doyen Thierno Niane mi nga xam tey mooy jëriñu mm. Baye Sidi Koulibaly Mbaba mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñëpp di la jërëjëf ñu ngi lay gërëm di gërëm ñu ñëw doon déglu yëpp di euh, gërëm Diaw Diallo mi ne woon ci jàppandal gi dig leen daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen yendu leen ak jàmm